Hop. Um, hop. Lasma. Lasma. Lasma. Mizan. Mizan. Mizan. اعتدال اعتدال اعتدال آم هب خلفكم التسليم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله خلفكم اليمين خلفكم تسليم وطني انتباه تسليم وطني انتباه عام إلى السماء هوب عام إلى السماء أب اعتدال قام إلى السماء قام إلى السماء أب تسليم وطني انتباه تسليم وطني انتباه تكبير الله أكبر تكبير القرآن القرآن والسنة القرآن القرآن والسنة الإسلام الإسلام ملتنا الإسلام الإسلام ملتنا الإيمان الإيمان مولدنا آه لسه هب راجعوا دعونا السلام واحد اثنين ثلاث دعونا السلام من رب سلام هو سلام ومنه سلام سلام عليكم وعليكم السلام يلا يلا واتي جنبك بارك سونك دعونا السلام من رب السلام السلام سلام عليكم وعليكم السلام yàlla yàlla wàcce jàmm barke sunu kaw yàlla yàlla wàcce jàmm ak barke sunu kaw sunu xol na si sente way gi beeg nañu lool fay buur bi yàlla yàlla def lépp doy ñi wasalaam yàlla yàlla def lépp doy ñi wasalaam daawuna salaam min rabbi salaam huwa salaam wa minhu salaam salaamun alaykum wa alaykum salaam yàlla yàlla wàcce jàmm ak barke suñu kaw daawuna salaam min rabb danañu mu ubbil ñu ci ñaan danañ jox imaam Seydi mu ubbil ñu ci ñaan bu pare incha allahu ñu jox benn taalibe ci taalibe daara Cheybatul Hamdi Diouf incha mu jàngal ñu alquran bu ñu paree incha rabbi danañ jox mot de bien bienvenue ki nga xamante ne dëkk bii ñu nekk commune bi ñu nekk muy Diamniadio ki ko fi teewal nga xamante ne moo tudd Mohamed Badji chef de cabinet waaye tamit représentant maire incha allah moo ñuy dalal ndax kat waxtul bu yu tamit abwaabiha kon bu ko defee incha allah moom la ñuy jox mu dalal ñu buñ ca paree incha tàgge boo gis daa am jàppal ma diw te bu lu toll nii buñ ko organiser yàllaak waa IEF jam ñaajo waaye tamit yàllaak inspecteur à langue arabe muy sëriñ Ibrahima Diop danañ ko jox moom it mu ubbil ñu wax ñu solos bis bi incha allah buñ ca paree incha danañu jox kenn ci sëriñ daara incha ñoom it mu wax seen tur buñ ca paree incha danañ jox ki nga xamante ne nag moo ñu jaboote ñu ñépp mooy l'IEF wala l'inspecteur Abdoulaye Gning buñ ca paree incha fii ñu nekk am na ku fi ne woon muy inspecteur à langue ñu xamee ko ci Ablaye Fall moom moo ñu war a defal conférence bi ci thème bi nga xamante ne l'islam face aux mutations sociales à la dégradation des mœurs nii daal lañu fas yéene liggéey incha allah bu ci kanam شرع لكم wal kon asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi jël kàddu ci turu maire El Hadji Mamadou Moulay Guèye nga xam ne tey mu ngi ci troisième mandat bi ci commune u mu yebal ma fii avec une forte délégation, Monsieur le sous-préfet Oumar ou son représentant, chers élus locaux, Madame le maire Fama Sey, Madame le maire Ndeye Aram Diagne, Monsieur l'inspecteur de l'éducation, de la formation, mon grand frère mon ami Abdoulaye Ning communément appelé Baye Fall monsieur l'inspecteur Abdoulaye Fall qui est en charge du centre régional de formation de l'éducation du personnel de l'éducation monsieur le parrain Madame la marraine, serge inspecteur ici présent, chers professeurs, chers élèves talibés, chers invités, je vais placer quelques mots en français avant de prendre la langue de Coach Barman autour de la journée du talibé. Je voudrais, au nom du maire du conseil municipal, m'exprimer devant cette auguste assemblée pour dire ô combien cette journée importante pour le premier magistrat de la commune de Diamniadio. Monsieur l'inspecteur Abdoulaye Ning, vous avez bien compris que l'éducation est une compétence transférée Et vous avez fait l'honneur d'inviter notre maire dans le cadre de la coopération entre votre institution et la commune de Diamniadio. Je voudrais témoigner ici devant ces professeurs et talibés que depuis que vous êtes là, vous êtes en train de traduire en acte la vision du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, dans le domaine de l'éducation. Je voudrais aussi dire que votre inspecteur monsieur Diop n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette belle journée qui a regroupé l'ensemble des talibés. Et ces talibés seront distingués aujourd'hui de par leur travail en classe. Mais aussi montrer qu'au Sénégal, la religion occupe une place centrale dans l'éducation de base de nos fils. Vous avez bien compris. Regardant le thème, l'islam face aux mutations et la dégradation des mœurs. Nous sommes tous interpellés pour pouvoir faire face à ces mutations, essayer de combattre ce fléau. Comme nous l'avons tous constaté, qu'aujourd'hui, Il y a tellement de dégâts dans ce pays. Il y a des tueries partout. Parce que la majeure partie de ces gens-là ont manqué l'éducation de base. Mais nous pouvons espérer, avec la religion, surtout avec les dars, nos enfants obtiendront une bonne éducation pour pouvoir gagner une place honorable dans la société Senghor l'a dit la culture est au début et à la fin de tout développement mais dal Carnegie a dit que l'école de base est le socle du développement de toute collectivité dans son fameux roman Comment éduquer l'enfant je vous remercie de votre aimable attention yàlla moo wax ni ci alquran wa ma bikum min fa min lépp lu ngeen am ci xéewal rek ak nu xéewal ga mën a tollu mu néew mu bari ci yàlla la jóge ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sang boobu nga xamante ni moo ñu indi li nga xamante ni tey mooy tedd nga joo xamante ni fu ñu tollu euh, mu nekk suñu mbégte te mooy mu def ñu ñuy ay jullit nekk di dox ci suufu ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mbokk yi xam naa ni duma ma guddal ndaxte kàddu yi ñu war a wax yépp euh, suñu kilifa incha allahu IEF dina ko wax dafa fekk ni euh, nee nañ ma mënoo ñàkk ba a jël kàddu li règle sinon bu du woon loolu sama kàddu kàddu IEF mën na ko yóbbaale kon moo tax may wax ni balaa may dugg ci euh, li ma bëgg a wax dama bëgg leeral ni liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey euh, ñi nga xamante ni ñoo fexe ba mu ki réalisé wu am ñooy bureau enseignement arabe et euh, des daara ñoo xamante ne dañu jàppalante ak IEF bi nga xamante ni mooy IEF a jëm ñaajo bu ma nee IEF rek dugal naa IEF ci boppam Abdoulaye Njëng dugal naa EG dugal naa les inspecteurs yi nga xamante ni ñoo teew ak ñi am ngànt ñëpp dugal naa tamit agent yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci IEF ba di fa liggéeyee kenn ku nekk nag am nga ci wàll waaw am ci nag benn agent boo xam particulièrement muy soxna euh, awa ki madame Ba moom dañ koy defal mention spéciale léegi sax wax naa dinaa wax IEF mu jël décret pour ñu transférer ko indi ko bureau arabe parce que léegi yaa daal lañ koy wooyee ñoom ay satoo ngi nii dañu bàyyi voilà kon soxna awo Ba mention spéciale guddee bi ñu doon wax démb mu ñoom moom ñun ñoo fa nekkoon ba muy ñibbi tànkam la doxee guddi waaw oto sax yóbbuwu ko kon noonu nga xamante noonu la soxna Awa mel kadalika équipe bi nga xamante ni ñoom la àndal moo di liggéey ngeen may ma rek euh, mënuma bañ a tudd seeni tur waaw parce que bi ma ñëwee inspecteur Fall bi muy dem ñoom la ma fi bàyyil vraiment boo ñu nekk équipe bu dynamique boo xamante ni euh, bu ma tuddee Lamine Faye Babacar Diouf Medoune Mbeng Saalixu Diouf Doudou Ciss Daouda Faye Cheikh Omar Faye ak ñeneen ñi nga xamante ni tamit ñoo leen di jàppale bi ñuy préparer journée bi am na ñeneen ñu ñëw ah ñoo xamante ni Euh, ñoom dañ daan déplacé di ñëw moo du Modou Kandour ñoom Issa Gueye Diop Thierno Baba hakata ak ñeneen ñi nga xam na ñoom dañ leen wax ñoom nañu reste ci école yi liggéey foofu amul benn maître dara bu folote waaw léeg-léeg dañuy ñëw indil ma ay somme yoo xam ne damay tiit ki monsieur le maire journée bi bu réussir xale yi la xale yi la journée bi bu réussir xale yi la gis nga budget bi bu dee Euh, cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent xale yi ñoo ko def dama mujj yéemu ci yàlla waaw dama mujj yéemu ci yàlla kon xale yi yal na yàlla def leen ay mag kon bu ko defee euh, kon yéen xam ngeen ni langue arabe dafa am histoire waaw maa ngi ciy ñëw incha allah langue arabe dafa am histoire ci Sénégal ah dafa am histoire bu xóot a xóot ci senegal gis ngeen même colonial bi bi mu ñëwee ba installé langam. terewul tamit jullit ñi continuer di nekk ay jullit bëgg alxuraan di ko jàng suba ngoon guddeeg bëccëg léeg-léeg nga koo xam ne ci taatu garabam lay nekk ah keneen nekk noonu ñaata école arabe ngeen daan gi ñu leen tuddee école arabe bu mbedd bon ñuy dem affaire boobu di avancer di avancer ba ñu xëy ñu commencé di ko formaliser ba mu dem dama dem ba deux mille damay tënk rek ba deux mille deux nga gis état encore xam ne lii demande sociale la mu inté mu intégré ko dem na ba parents yi. am na ñoo xam dañ naa école bu amul maître d'arabe sama doom kii du fa dem am na ci exemple bu siiwoon jamonoy euh, président Ablaye Wade fële ca Kolda benn sëriñ bu bu fa nekkoon bu sant Diop ni ni bu ñu fa indiwul maître d'arabe dëkkam kenn du fa jàngale donc loolu noonu la arabe mel ci euh, bat yi wax na ko léegi ñun ñun ñun dañu mooñaale lislaam bu ñu ko bëggee ak bu ñu neexee dañu ko mooñaale ah mooy sunu nature mooy sunu nature kon il faut nit ki dangay ngay dellu sa cosaan kon lii ñuy def nii dellu ci cosaan la euh, dimbali daara parce que nitu daara ah, ak nitu koo xamante ni lépp bu amee événement bu am euh, ci Sénégal ñoom nga ñoom la ñuy woo bu dee bu neex bu naqari lépp ñoom la ñëw boo amee jaxale si ñoom ngay dellu mais kooku ñooñu am nañ valeur kon looloo tax ñu ni du ñàkk moo journée bu mel nii ah ñu sargal sunu ndongo daara yi ci loo xamante ni. initiative la boo xamante ni bu euh, ki boo xamante ni sunu inspecteur Abdoulaye Fall moom moo ko jëloon depuis 2017 mooy première édition bi mu def ko vraiment tamit équipe bii may wax nga xam ne équipe bu suudee wala ñu jàppale ko ci ba première édition bi jàll réussir ñu ñëwaat ci deuxième édition bi encore mu tombeek ñun ñu nekk muy mille 2019 booba tamit euh, édition booba tamit réussir Pape Gueye yaa ngi jàkkaarloo ak sa loxo duggoon na bu baax a baax ci deuxième édition bi yàlla na yàlla fay waaw jërëjëf kontaan nañ ci yow baax a baax parce que am na ay jeunes yu mel yoo xam ne bu ñu defoon ni yow kon macha allah kon euh, li nga ñu defaloon boobu fàtte wuñ ko de te yàlla dina la ko fay dinaa ci ñëw léegi wax la lii firde bi tax euh, nit euh, war a def lu baax yàlla dafa wax ci alxuraan mu ni ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla xam yàlla ci kumpa lañ koy gëm parce que gis ñu kenn gisu ko ah di taxawal julli. wa mimmaa razaqnaahum foofu laay taxaw wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna la yàlla wax ñuy euh, li leen yàlla wërsëgal ñu di ci dépensé li leen yàlla wërsëgal ñu di dépensé yàlla waxal ci benn ay mu ni wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu lépp lu ngeen dépensé ci li ma leen jox dama koy remplacé gis nga ki la gën a mën a joxe moo la gën a mën a mën a am qul li ibaadiya alladina amanu yuqimu salaata wa yunfiqu bi ma razaqnaahum waxal sama jaam yi nga xam ne dañoo gëm yàlla ah nañu taxawal julli waaye wa yunfiqu maanaam ay ay yi wax ci dépense joxe ci yàlla tax dafa bari ci alxuraan ba ba kenn mun ko lim wa yunfiqu bi ma razaqnaahum xoolal sirran wa alaaniya la wax gis nga ci lu feeñ ak lu nëbb kon li ñu def bu amee ñu wax ni kenn waru ko publicité yàlla dama wax sirran wa alaaniya kon joxe mën nañ koo def ci kaw mën nañ koo def ci suuf waaw parce que bi ngay joxee ci kaw pour encourager keneen pour mu joxe parce que alal dafa sax ci xool de léeg-léeg génne ko ak a jafe mais bu la yàlla dimbalee ba nga nangu koo génne yow yaa fi gën waaw yàlla dimbalee ba nga nangu koo génne parce que yàlla mu ni dangeen ngeen di joxe ci li feeñ ak ci kaw ak ci suuf min xabli an yaati mun laa bay bay'un fiihi wala xilla balaa beneen bis di ñëw boo xamante ni ah amul jënd ak njaay amul xarit amul dara foofa moom la nga defoon démb ci àdduna loola la la yàlla di fay gis nga àllaaxira loo fa deful doo ko fu fekk boo demee da ngay rëccu perte yàlla na ci yàlla musal ah yàlla mu waxaat ci benn ay mu ni kan mooy lebal yàlla bor bu rafet ah bu ko defee ma fulal ko ko fa yudaa'ifu lahu adaafan kathiira ah wa anfiqu mimma razaqnaahum ah yàlla mu ni na ngeen dépensé ci li ma leen ci wërsëgal lu tax mu ni min xabli an yaatiya ahadakumul mawtu balaa dee di ñëw ah fa rab rabbi law laa axartani ilaa ajalin ndeysaan toog di xoole ba dee ñëw nga naa yàlla boo ma boo ma boo ma mayoon tuuti rek ma ma dundaat un an walla deux mois perte nga ah fa asaddaqa wa akun mina yàlla boo ma mayoon ma dundaat tuuti rek dinaa sarxe dinaa bokk ci ñi baax dinaa def li dinaa def la eh, amul njëriñ bay wéy na mbuus kon lii lenn la ci aay yoo xamante ni ah, munuñu ko woon ba bañ tudd ngir encouragé ñi nga xamante ni ñoo jël seen alal tey def ko ci bis bi xoolal bis bi ni mu taaroo ay bonne volonté ay nit ñoo xamante ni ah dañoo làmb seen poos ah def ci te yàlla rek tax loolu ñun amuñu seen fay yàlla rek moo leen mën a fay te li ngeen di def yàlla rek moo tax parce que da ngeen ko daan def démb ki defaat ko tey kon yàlla na yàlla euh, ki fay leen te yàlla yonte bi nee na allah fi awni abdi maa daama abdu fi awni axiihi li fekk nit ki mi ngi dimbali jàmbeer yàlla di ko euh, yàlla di ko dimbali kon euh, ki ma wax ni bis bii inspecteur Abdoulaye Fall moo ko initié woon ak ñu ko jàppale ah bu ko defee léegi euh, cant googu moom it da ci am wàllam bu baax a baax parce que ku def lu baax ba nit ñi di ko roy loola yow sa tiyaaba toujours euh, dala da da kii dalay fekk kon vraiment pour tënk kàddu yore li ci des IEF na ko eggale mooy ñoo ngi sant école yi moo xam privé la wala public bon di sant ñi nga xamante ñëpp ay bonne volonté lañu di sant nag waa Daara xam Hamdi Diouf ñoo ñoo ko ànd ak ñun bii passé ñëwaat ànd ak ñun. vraiment loolu ñu ngi leen di sant bu baax a baax parrain beeg marraine bi yooyu incha allah ak yeneen ak yeneen yooyu dama koy bàyyi ak yéen en tout cas daal lii mënu koo ñàkk bañ a wax remercier ñi nga xamante ni vraiment ñooy sëriñ daara yi ñoom it ci euh, dimbalante bi ñuy def ak ñun saa yu leen soxlaa woo leen benn ñu ñëw wala ñu fekki leen vraiment tamit loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax di sant soxna yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñi ma xam ak ñi ma xamul di gërëm ñëpp les directeurs d'école ah di sant ñëpp. Euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. donc kaddu yi kaddu yi gërëm lay doon te maa ngi koy njëkkee ci comité d'organisation bi ndax man dama ñëw fekk ñu doon def deuxième édition journée du talibé muy deux mille dix-neuf donc deux mille sept deux mille dix-sept inspecteur Ablaye Fall mii la fi fekkoon mu ànd ak pratiquement la même comité ñu organiser ko. ma ñëw 2019 gis ne mbir mi kat wax dëgg rafet na rafet na lool ma ne leen kuy def lu baax doo ko jëndal nañ ko def chaque année malheureusement pandémie bi ñëw 2020 mënuñu ko organiser 2021 mënuñu ko organiser ren ma leen ah gars yi comme mbas bi muy xaw na wàññeeku te ñoo jéem a organiser ren ñu ne ca nelawuñu yendaluñu wax dëgg sonn lool ci journée bi xam nga inspecteur arabe bu jëlee parole di remercier du mën a wax ci boppam mais moom lu ñuy njaagate mooy njaag yëf yi bu réussiree joué na bu mag te waa comité bi duñ ma démentir la këram di sori sori géejawaay bu leen nee huit heures réunion sept heures wala avant sept heures et da ko fay fekk te comme ni ko Lamine fay waxee sànq da doon ci terrain bi dem ci école yi bokk ak ñoom liggéey bi muy lu am solo euh, Ibrahima yàlla na la yàlla fay dafa am lu ma tàmm di wax nag dama ne yàlla sunu boroom xaritam Ibrahima la tudd seen Touba am na am Ibrahima man leen ko amul Ibrahima na ko wuti man de am naa ay Ibrahima ñaari Ibrahima ne sama wet donc yàlla na yàlla xeeb tool yal na yàlla yokk wér yal na yàlla guddal fan yal na yàlla yokk xéwal yi donc maa ngi remercier également tout le personnel de l'IEF ndax nit ñi dañuy wax bay ci say oom di remercier SG di remercier le pour des inspecteurs di remercier tout le personnel de l'UF ndax kat wax dëgg yàlla waxuma sax ci journée bi waaye inspection ñi fay ñëw ñëpp li ñu fa remarqué mooy jàmm ci ñun dunduñu stress boo ñëwee da ngay fekk kaf ree jàppante bëggante te yàlla tax loolu yàlla may nañ ko au niveau de l'inspection kenn du ci ñooru sa morom ku am looy wax sa morom da nga ko koy wax ba pare nag ñu joxante cër ku nekk ki la féete mag malgré li ma nekk IEF ñoom ñaar ñi samay mag lañu ñun loolu lañu xam Afrique ku la mag da nga koy jox cër àgg bu muy sama mag la mais du tey ñu waxante dëkk du tey ñuy jéem a sellal liggéey bi donc ma leen di remercier ñoom ñëpp tout le personnel de l'IEF sans exception di ñëw ci Ablaye Fall nga xam ne moom ci ñun la bokk Ablaye yàgg naa ko xam di ko remercier ci liggéey bi mu fi jot a def mais surtout di ko remercier ci disponibilité am bi ñu choisiree thème aussitôt dañ ne Ablaye Fall lañ koy jox woo ko téléphone wax ko ko te xawoon na xat waaye dane bu soobee yàlla dinaa teew te dinaa leen defal conférence te a priori man xam naa ne conférence bi war nañ koo teewlu bu baax dinañ ci jànge lu bare bare bare bare te lu actuel la xam nga ne lislaam face au mutations sociale et à la degradation des mœurs xel yi dina dem ci lu bëri jamono dafa changé bu ñu waxee mutation mooy changement yi am la woon ci maam ak ci maamaat dafa woon ni est-ce que mën nañoo delluwaat gannaaw yee salaat ni ñu daan dundee ni maam doon dundee ñun ñu koy dundee xam naa ne dina jafe waaye bu loolu amee a ah, jikko yi yàqu ñuy wax crise des valeur lislaam lan moo war a nekk taxawaayam ndax nag dama naan kuy dem te xamoo fa nga jëm dangay wàññeeku delluwaat gannaaw tuuti dellu gannaaw bi nag du jéema dundewaat ni maam ñi doon dundee mais xool lislaam ndax l'islam nag bu ñu waxee diine ak jamono jamono fu mu mënti toll rek l'islam fekk na wax na ko lu jiitu souvent day am ay découverte scientifique dañ naan pourtant day lii l'islam jotoon na koo tudd ci jamono bu yàgg donc l'islam day dëppook jamono illaa yomiti donc Ablaye ñoo ngi lay xaar ci thème bi donc na ñëpp teewlu te taataan vraiment ci Ablaye may remercier aussi les CODEC inspecteur remercier na leen waaye du doy duñu yendal du ñu fanaanal xam nga ñenn ñi xamuñu lan mooy CODEC maanaam directeur d'école yi Bargny ak Sendou dafa am koo xam ne mooy seen coordonnateur c'est le collectif des directeurs d'école fii jam Diamniadio am koo xam ne mooy seen coordonateur yenn am ko Sébikotane am ko ñoom ñeenti codec yooyu wax dëgg yàlla lu ñuy liggéey inspection lu ñu fay liggéey lu mu mënti doon bu ñu leen woowul ñu ñëw teew liggéeyandoo ko ak ñun dañ leen woo téléphone wala ñu ñu dugal ci groupe whatsapp yi ne leen nangam ak nangam jàppale leen ñu ci directeur d'école yi donc ñoom ñoo nekk suñu diggante ak directeur d'école yi ñoo nekk parfois suñu diggante ak maire yi ñoo nekk suñu diggante ak maître d'arabe yi donc seen liggéey am na solo lool lool lool lool yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi mais tudd naa ko yi mais am na koo xam ne dama ko ciy boole comme personne ressource muy Sankharé Ousseynou sànqare nga xam ne lu ñuy liggéeyee codec yi da ciy bokk ak kenn ki nga xam ne mi ngi jàkkaarloog man te bëggumul ba tudd ko waaye c'est mon conseiller di nit ku baax kenn du weddi li may wax ñi ko xam yàgg ak moom dinañ confirmer li may wax di doomu Kaolack ñu dëkk Kaolack xam nañ ko muy Papa Ndiaye mi toog nit ku baax la vraiment xam nga ñenn ñi buñ ñu ba jege retraite dañuy laisser buñ bu demee ba gën a jege laisser deux nag loo wax ñu ne ah sama adjoint ma nga fa moom loolu dalu mooy Ibrahima Diop mii donc boo desee benn weer pour dem retraite da nga war a dem ba jeex man loolu laa gëm ko boo defee benn fan boo defee benn waxtu sa liggéey sellal ko ndax lu ne ci nettali lay mujj moo tax dañoo war vraiment di ko rafetal donc maa ngi remercier directeur d'école yëpp di remercier chef d'établissement yi di remercier également les maîtres les professeurs crayon en di remercier les personnels administratifs di remercier les élèves comme ni mu ko waxee am na ci école yoo xam bu ñu fa demee daanaka cent mille francs élèves dañ koy joxe daanaka ñuy joxe seen juróom ñuy joxe seen ñaar dërëm ñiy joxe seen yére donc véritablement li ñu tuddee journée bi journée de solidarité xale yi xam nañ ñoom lan mooy solidarité gannaaw loolu may remercier nag l'ensemble des maire donc cinq communes la ñu am te maire bu ne am na foo ma jàppale équipe yu bees yi sax yi nga xam dafa am changement ñi nga xam dañuy door a ñëw xëy na miina guma leen waaye maa ngi dégg déjà ay action yu tàmbali mais ñi fi jógee tamit te def fi lu baax day baax ñu leen di fàttaliku maire u Bargny maa ngi koy remercier bu baax la maire sortant je dis bien ndax am na réalisation yu mu def bi ñuy wax ci classe abri abri provisoire yeeg yenn détails yi waxande boo fa demee tabax na fa ñaari classe yu baax yoo xam ne dafa dem ba raser finalement ñu jëlee ko fi indi keneen bërki démb laa fa dem visite de chantier gis ne urdu ya ma nga fa lépp nga fa kuule moo ci des ki représenté maire so euh, maire entrant bi bu ngeen yeggee ngeen ne ko mu dimbali ñu ñu yeggale ñaari classe yooyu feek octobre te en dehors de sa man orienté naa fa waa construction scolaire pour ñu def fa yeneen salle de classe yeneen deux salles de classe classe yooyu Sendou lañ ko waroon tabax mais dama leen wax ne nañ ko yóbbu waxande parce que Sendou am na ku leen di tabaxal six salles de classe te deux nga fa déjà am nañ bloc administratif am nañ bloc d'hygiène may remercier aussi le maire de Diamniadio ndax kat bu ngeen demee ñaajo 3 def na fa quatre salle de classe yoo xam ne récemment construction scolaire bi ñu fi ñëwee dama ànd ak ñoom foofu ak benn cabinet bu ñu jël ak benn entreprise mais bi ñu ñëwee dañ ne ma ah liggéey bi de jaar na yoon fekk ma ne leen bi ngeen bi ñuy commencé nag yëguma ko directrice yeex na ma ko wax mais malgré tout dem naa fa pour ñu xool salle de classe yi te bi ñu ko gisee dañ ne ma macha allah. Seulement, euh, le représentant du maire, mon ami, Eliman Badji, xam nga dañuy collaborer collaboration nag bu ñu ko waxee mooy dañoo war a xàccandoo di dóorandoo ñoo bokk éducation parfois on parle de compétence transférées mais man dama naan c'est une compétence partagée am na yoo xam ne maire la war am na yoo xam ne IEF la war création école IEF la war yëpp mooy créer préscolaire élémentaire moo koy créer en fonction des besoins bu population yi ñëwee ne dañoo soxla école rek li war mooy IEF defal leen te j'en profite pour bu dire que même demande demande parents d'élèves ñun ci loolu la ñu war a conformer wu parent d'élève bu wax ne damaa bëgg franco arabe dañ ko war a defal franco arabe parent d'élève bu ne damaa bëgg daara moderne dañ ko war a defal daara moderne ku ne dama bëgg classe euh, école traditionnelle yi ñu defal la ko man de loolu ci loolu lay dox ku ci ne loo wax ne moom nga bëgg dinaa ci xar sama tànk tubéy defal la ko d'ailleurs maa ngi doon wax ne boor yi yéen sax bëgg naa fa def encore franco-arabe moom mooy directeur des ressources humaines ministère de l'économie du plan et de la coopération di remercier la marraine xam nga sànq maa ngi wax li bi def man ku def naa ne def na ku deful damay wax deful si comme ça ça peut déranger mais Pape Gueye tey laa lay door a gis te li tax sax sa waajur bu jigéen ñu def ko marraine gis seen taxawaay ci la bokk gis seen taxawaay ci la bokk ndaw nga mënoon ngaa dem grand théâtre di battre mais yàlla xiir la ci def ci lislaam def ci daara def ci alxuraan yàlla na la ko yàlla fay yàlla na yàlla fay sa waajur bu jigéen ak sa waajur bu góor xam nga nit souvent li ñuy wax rek ndey ja doom ja duma wax bàyyi sax li waykat bi di wax yaay ju baax mooy jur doom ju baax donc véritablement ñu ngi remercier toute votre famille remercier sa waajur bu jigéen sa waajur bu góor ak yow ak say frères ak say sœurs di ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yàlla yokk seen i xéwal. di remercier également euh, le parent ak délégation di remercier la marine ak délégation di remercier Elimane je l'ai déjà vu eh, di plutôt Badji di jàllale rek ay information bu gaaw bala maa jeexal. li may wax ne nit sumbu rek la mën sumb yàlla mooy mottali nit yéene lay am rek yéene bu rafet yàlla moo koy mottali bi ma ñëwee jam ñaajo comme ni ma leen ko waxee woon sànq foo xam ne rek am na besoin dama naan indi leen ma liste bu dee am ngeen trente élèves yu war a dugg école ngeen am fu ngeen leen dugal am délibération ak extrait de plan plan ma créé école ci noonu école Ngent war nañ fa def quatre salles de classe démarré nañ ko war na am bloc administratif war na am bloc d'hygiène war na am mur de clôture te bañ koy tàmbali c'était pas évident di nañ ko planifié woon bu yàgg ci BCI 2021 la bokk ak ci programme de remplacement des abris provisoires <coughs> de même kip kip dañ fa def bloc d'hygiène dañ ko def yéen kaw dañ ko def Sébirut Sébirut bloc bloc administratif la war a am cité des fonctionnaires état dina fa def douze classes ak mur de clôture Diamniadio de dinañ fa def deux salles de classe Dougar deux dinañ fa def deux salles de classe CM Sendou deux classes yi fa waroon def yooyu lañu war a yóbbu waxande pour bu diir que état mi ngi def effort ci éducation collectivités territoriales yi ñoo ngi ñuy accompagner. donte nag am na lu des mais lépp xëyul mat donc jàppalante rek système bi yëpp dox parce que bu ñu nee système éducatif au niveau de l'IEF de Diamniadio <coughs> ñun ñoo yor alphabétisation <coughs> maa ngi jéggalu ñoo yor alphabétisation ñoo yor préscolaire ñoo yor élémentaire ñoo yor moyen ñoo yor daara loolu mooy suñu domaine de compétence daara yi ci inspection la bokk de sorte que année bu jot ci budget inspection dina ci jël daanaka lu jege deux millions jënd ko ay téere pour séddale ko daara yi te amaana am na inspection yu bëri defuñu ko pour bu dire que bu ñu la dénkee li ñu la dénk li ñuy wax reddition des comptes loo ci liggéey ña ko seqal na leen ko leeral man noonu lay doxe donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu ci guddal bi waaye gise dafa yombut moo tax ma profité ci jàllale information yi yëpp wasalaam merci kàddu yu am solo xam naa ñu présente délégation de madame le minis ngoone Ndoye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 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم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 baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu mboolem sëriñ daara yi fi teew ak seeni ndonga ban fa jógee ñu nuyu waa IEF ban fa jógee ñu nuyu ñi nga xam si ne ñoo fi teewal état te mooy maire ngeen baal ma nag ci tàmbali gi ma tàmbale ci sëriñ daara yi ndax bay sa wowu tànk beneen ba ca des ñi ngi sant yàlla bu baax ca di leen gërëm ci jëf ju rafet jii nga xam ne si na eef bu jam ñaajo ñoom ñoo ko ànd ak sunuy mbokk yi nga xam ne si ne ñooy mbokk yiy jàngale ci école yi nga xam ne si ne mooy école français yi loolu xalaat la bu rafet jëf la joo xam ne si ne fi ñu toll ak tamit li ci nekk ci aw yiw yaakaar naa ñoom ñi ko xalaat sax xamuñu ko kon ñu ngi leen sant bu baax ci xalaat bu rafet boobu IEF ñi nga xam ne sii ne ñoo fi nekk mooy équipe bii fi ne nii nii xam na ne am na beneen équipe bu fi nekkoon avant ñoom waaye ñoom fi ñu teg seen tànk ah ñi leen ñi nga xam ne si ne remplacé nañ leen day wax dëgg yàlla gis nañ ne jéego yi di def gisuñu woon IEF yu mel na ñoom di ko def ba ci IEF yi nga xam si ne ñoo ñu wër ndax ñun dañuy dem di liggéey ak ñoom ñun ak ñoom la ñoo far dañ leen di soxla ñu nuy soxla ca buñ leen soxlaa danañ fexe ba nekk ci suñuy itte ànd kook ñun ànd bu rafet kon nag ñing ñu ngi lay sant yaag équipe bi nga xam si ne moom ngeen àndal kon su ko defee nanu fonk waa daara te xam ne fii lu fi baax daara la loo xam ne si na nag Euh, sofaan la duwaa daara ban tàmbalee foyee daara yi ci la jikko yu ñaaw yi am jikko yu ñaaw yooyu nag li fexe ba mu jóge fi mooy nan dellusiwaat ci waa daara jàppale waa daara dimbile waa daara ba waa daara mën a toog jàngale mën a def ci xale yi jikko ju rafet wax dëgg nag moom lu ne fàng kenn du ko jeex ndax wax naa sànq ne lii ñu fii def tey am na ki nga xamante ne moom moo ko sos te nit ki na nag dul fàttaliku démb a ah, boobaa na gore woo kon faw ñu fàttaliku ki nga xamante ne moo initié lii muy inspecteur Abdoulaye Fall mii toog yal na ko yàlla fay yiw gën koo kàttanal lim fi nekk de yàggul waaye nag bàyyi na fi ay aasaar ay jeexital yoo xamante ne kenn ku ne teg na ci bëtam am na njëriñ ci jàngalekat yi ñoo gën a sentir école yi tabaarakallah macha allah daara yi ñuy jox yii tey don yu bëri yii tamit Ablaye Fall mii moo initié bis bi kon inspecteur yal na la yàlla gën a kàttanal waaye mu fa bi mu fa jógee moo ngi kontine nekk ba tey inspecteur waaye nag formateur au CRFPE centre régional de la formation des personnels de l'éducation bi nga xamante ne moo nekk Rufisque ñu ko woowee dakaar kon Ablaye jaa jëfati waaye yemu ca nekk na benn directeur boo xamante ne centre international d'excellence la de la formation et le développement en collaboration ak benn sant bu nekk Canada bëggul ñu tudd ko nag waaye danañ ko tudd ndax Ablaay li am yàlla moo la ko defal te faw ñu sant la ci ñaanal la ci ndombol tànk yooyu ak jaar-jaar yooyu yal na ko yàlla gën a continuer di ko barkeel li des nag dañ koy bàyyi moom bu waxee dana feeñ ñoo ngi nuyu mboolem ñu teew ci jataay bi Euh, danaa inversé sax nuyoo bi ndax ci IEF laa war a njëkk a tàmbale wala monsieur le maire waaye damay njëkke sëriñ daara yi ñoom laay njëkk nuyu maa ngi leen di nuyu baax a baax nuyoo bi yàlloo ak taxawaay bi ñu amel alxuraan di nuyu euh, monsieur le maire euh, Mouhamed Badji nga xam ne moo fi teewal mu laay maire bu commune bu jam ñaajo ak mboolem ñi mu àndal di nuyu IEF di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fii ci jataay bi rawatina sama njaate gi bii ci sama gannaaw mu inspecteur Aguibou su ma ko nuyoo nuyu eef rek nuyu naa ñëpp waaye di beral nuyu itam dongoy daara yi nga xam ne bis bii ñoo ko moom di nuyu mboolem soxna yi na ci jataay bi di nuyu dongo yi nga xam ne dañoo jóge ci yeneen daara ñëw def prestation ngir taaral bis bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen sargal waaye di nuyoo itam nag beral nuyoo samay jigéen yoo xam ne dama leen a namoon leen gëñ leen a gis mooy ñële toog ci taabal ba waaw wax dëgg yàlla euh, gëj nañoo gisante euh, te namoon naa leen moo tax bi ma leen gisee dama wax ne bis bi su yemoon fii sax baax na wax dëgg yàlla damay yaakaar ne daanaka conférence bi moom ku ku am ak seetlu da yëg ne conférence bi jeex na waaw conférence bi jeex na waaw lu tax jeex na boo dégloo discours u euh, monsieur le maire Badji Euh, nga déglu discours euh, euh, inspecteur Ibrahima Diop nga xam ne bi mu diggee ci aay yi nga xam ne sax day wax ci joxe ci yoonu yàlla nga pare déglu discours IF Abdoulaye Ñing dañoo ramassé ay points yoo xam ne lu ëppoon ci waxtaan wi li ma bëggoon a wax wax dañ ko far nag sëñ Ba Touré ñëw moom eggale la ci des kon damay wax ne loolu moo tax ma ne conférence bi ku teewlu discours yi rek da nga yëg ne conférence bi jeex na euh, thème bi ni ñu ko tuddee mooy l'islam face aux sociale et la dégradation des mœurs mooy bu ñu ko doon tënk ci olof rek mooy coppite bu nga xam ne jamono noonu la soppi ko ak jikko yi ni mu yàqoo léegi loolu wax dëgg yàlla thème la boo xam ne bu fekkoonte ne dañoo xëyoon 9 mën nañ toog di ci waxtaan ba 14 heures te du jeex kon du dana jafe lool ñu di ko tënk ci ay minutes euh, walla lu demee noonu euh, waaye daal nañu bàyyi xel ne bala maa ñëw foofu euh, dama bëggoon a defal yëkkati kàddu yoo xam ne dama ko bëgg a jëme ci sëriñ daara yi muy kàddu yoo xam ne nañu leen bàyyiwaat xel bu baax a baax nañu bàyyi xel daara yi bàyyi xel sëriñ daara yi bàyyi xel ndongoy daara yi c'est très important loolu nag waxuma ko ngir soññ waa jam ñaajo ndax ñoom ñu ngi ci ñi fi ñëw teewe bis bi gari te ñoom nekkuñu ci li waa jam ñaajo nekk ñooñu lay waxal mooy nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ah, ah, am na xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy wax am na sax ci muhaddisu ni ñoo xam ne daif la waaye même bu fekkee daif la contenu hadis bi man du munul xadis saxe mooy gis ngeen cellug jamono ji ni muy nuy cell léeg-léeg ak jàmm ji léeg-léeg mu bari wala léeg-léeg nga gis koo xam ne day nelaw di xaran ba ba ba ba biddanti du julli ñaari rakkaay fajar jàmm jooju xam ngeen lu ko ko may gone yii ne ci daara yi di jàng téereb suñu borom bi subhanahu wa damay wax ne kokki rek laa wax kokki ku demoon daaray kokki kokki kese nga xool lañ fay jàng alxuraan ak nañ koy jàng ak nañ koy jàngalee nga xam ne boo jubee dëkk bi lu sori da ngay dégg benn riir boo xam ne dafay mel ni ay yamb yuy jooy da ngay defee ne dara moo xew te fekk ne alxuraan kàddug alxuraan la ñuy nga ñëw boo ñëwee dugg ci dëkk bi bu dee waxtu nafar la maanaam ker garab goo xool rek am na ko fa sëgg di di di di mbing di dem ko ñëw di di di di di jàng téere suñ borom bi nu ne bind nañ ko fa alxuraan nu ne taree nañ ko fa alxuraan nu ne jànge nañ ko fa alxuraan nu ne jàngale nañ ko fa ma ne foofa rek laa foofa rek mën naa yor senegal foofu rek mën naa yor jàmmi senegal boo ci dollee nag euh, Fass Touré nga dolle ci jaamal nga dolle ci feneen ak feneen ak feneen kon kenn loolu kenn xamul nu mu toll moo tax bari na ñu fi nekk sax ci suñ njiit yi di def di ñaan loo ko def yëf defe ne ñoom jàmm yi ñu am ñoo ko may seen bopp te fekk ne li leen ko may xamuñu ko wax li leen ko may xamuñu ko moo tax yenent bi bis dafa toog ak saxaaba yi ne leen suñ boroom de dafa am ñoo xam ne waa këram lañ ay ñoñam lañ loolu waxin la mi ngi mel ni jàkka boo ñëwee ne baytullah mooy néegub yàlla te kenn ko ne xam ne ne yàlla amulub néeg mu ne yàlla day am na waa kër loolu bi mu ko waxee saxaabatul kiram kenn ku nekk da ngaa yàkkamti woon di xaat di ko poser question ñu ñan la war a doon ndax bëgg nga caa bokk mu ne leen waa kër yàlla day ñooñam day mooy ahlul quraan mu ne hum ahlullahi wa xaasatuhu mu ne ñi nga xam ne ñoo fare alxuraan ñoo ko faral fare wa alxuraan ak faral ko nee na ñooñu ñooy ñoñ yàlla waaye ñooy ñi nga xam ne sax ñoo ko jege lool nag di ñoñam ñoo xam ne boo ñëwoon ci biir kër sëriñ bi biir kër sëriñ bi am na ñoo xam ne ci ëtt ba la ñuy ne am na ñoo xam ne ca saal ba la ñu ne mais am na ñoo xam ne fu sëñ bi nañu ne ci wetam ki nga xam ne fi sëñ bi ne mu ne fee tam nee na kooku mu ci xaasa la bokk nag ne na alxor ñooñu alxuraan noonu lañ mel ci yàlla noonu lañ mel ci yàlla loolu nag firiwul rek al baatub arab arab ni ñu koy làkke dafa yéeme moo tax yonent bi tam xat uutiya jawaamiul kalim moo tax bi mu wax ne hum ahlullaahi waxul hum eh, ahlul quraan waxut ne hum ahlul quran waxut ne hum mudarrisul quran waxut ne hum tullaabul quran waxut nangam mais ahlul quran la wax boo waxee ahlul quran nag ka koy jàngale mu nga ca biir ka koy jàngal mu nga ca biir këjal jël doomam yóbbu fa mu nga ca biir ka leen di toggal mu nga ca biir ka leen di jàppale lu ñiy def bis bu mel ni sax ñu nga ca biir ña ca dugal seen alal mu nga ca biir moo tax buñ ko xatal dafa yaatu bu buñ ko xatal bu sëriñ daara bi defee moom rek la itam bu ko xatal dafa kon li tax ma wax loolu yonent bi dafa waxoon ci beneen xadis mu ne lawla shabaabun xusha wa bahaa'imun rutta wa shuyuuxun rukka wa atfaalun rudda la subba aleykum alazaabu sabba mu ne jàmm ji jàmm ji ne ci réew yi ne tekk yàlla wàccewul ci seen kaw mbugal te xam ngeen ne kaw suuf si nu ne yàlla mbugal na ko fi ay xeet yi jiitu xeetu muhammad nu ne yàlla mbugale na ko fa aw xeet am na ñoo xam ne fa bi bihimul arda yàlla daa toog ba ci yàgg ne wax suuf ne suuf wan na leen suuf war na leen kenn gisatu leen am ñoo xam ne dañ leen a transformé def leen ay golo am na ñoo xam ne neneen lañ leen mbugalee waaye xeetu muhammad yàlla musal na ko ci lool ngir ñu mel ni ñi yonent bi tudd mu ne bu doontoon ak ndaw ñoo xam ne dañoo sàmm seenu ndaw ba fooy ko mooy shabaabun xusha ak bayaawim mooy mala yi nga xam ne da coon ne ci àll bi ñoom xamuñu lu du tooñ yàlla ndax xamuñu lu xew di wër di wër lu ñu lekk wa suyuuxun rukka ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñooy tëju ci seeni biir néeg di sujjootal yàlla ak di ko rukkooal bay jooy te kenn du ko yëg wa atfaalun rudda ak xale yi nga xam ne seeni ndey dawee na uuf di leen nàmpal te ñoom xamaguñu lu xew ci àdduna bi nee na bu doontoon ak yàlla ne bëtub yërmande may xool ñeent ñii kon danaa wàcc ci yéen mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon danaa ko sotti ci seen kaw te xam ngeen ne yàlla li mu daan mbugale xeet yi jiitu xeet yi jiitu li leen yàlla di mbugale seen mbugale Sénégal mi ngi koy def kon bu ñëwee ci waxtaan wi mooy soppiku jamono jamono ni mu soppi foofu nag dafa am ñaari changement dafa am changement positif ak changement négatif jamono mën naa soppi ko waaye bu ñu wax ne jamono soppi ko nag kon de dara baaxatul wala ñu ne jamono soppi ko nag comme jamono naa soppi ko léegi lépp baax léegi déedéet ci biir coppite bi am na lu baax am na lu bon moo tax lisma l'islam conforme gi muy conforme ak dundiinu nit ki nga xam ne ba àddunay tukki day mën a ànd ak dundiinu nit ki changement bu ñëw mu mu mu ànd ak moom ndax moo wax ne ma farratna fil bi min shay'in loolu moo tax dafa bàyyi xel yenn masala yi ba nga xam ne ci biir lislaam dafa am lu ñuy tudde ay sawaabit ak ay mutaxayiraat sawaabit yi sawaabit yi mooy li nga xam ne du changé nañu daan nodde tis nañu daan nodde nañu daan jullee tisbaar nañu daan jullee tàkkusaan nañu daan aje màkka nañ ko daan defee màkk ak Madina noonu lañ ko defee Sénégal noonu lañ ko defee Asie noonu lañ ko defee Europe noonu lañ ko defee àdduna tukki loolu ay sawaabit la yi nga xam ne nag dafa dépendre ci dundug nit ki te dundug nit day évoluer di changer loolu ñu tudd ko ay mutaxayiraat ay mutaxayiraat nga xam ne day changer selon contexte yi day changer selon jamono yi ak milieu yi loolu moo tax fuqahaa yi di indi li ñuy tuddee an nawazil fiqhu nawazil xam ngeen ne amul woon al mazahib al arba wal mazahib allati qablaha mboolem mazahib yi amu ci benn masab boo xam ne chapitre fiqhu nawazil amoon na ci même téere yu mag yi nga xam ne sax moom la ñuy jàng commencé laxdareeg asmaa weeg Euh, risaalaak euh, muxtasar boo ca demee fiqhu nawazil la amu ca waaye boroom xam-xame biñ demee ba gis ne jamono ngi dox te nii muy doxe laaj na ñu tëggaat masala yi gëstuwaat ci xam ngeen ne li ñuy tuddee euh, nu mu tuddati mooy loolu ñuy ji li li ñu wax ne li nga xam ne jur na coow ci jamono yi ci ginnaaw nga xam ne jigéen ñi ma avortement précoce avortement précoce xam nga loolu amul woon mais borom xam-xam yi ñoo ciy dellu càmbaraat ko ba xam lan la ci lislam wax ñu génn ci àtte loolu ci fiqhu nawazil lay bokk xam ngeen ne li ñu tuddee la planification familiale amul woon mais fiqhu nawazil moo koy jàngat ba xam lan moo ci dagan ak lu ci daganul loolu nag moo tax lislaam dafa nekk lu global nekk loo xam ne lu matale la nekk loo xam ne lu ubbeeku la moo tax ci changement yooyu am na loo xam ne dafa dëpp dafa ànd ak dunduk nit ki loolu ay changement yoo xam ne positif la ci misaal am na jamono yoo xam ne bu xibaar amee fii ci jam ñaajo ñu bëgg koo yóbbu wax ci beneen dëkk déeni Malick Gueye dañuy wax gone ne ko waralu fas mu war aw fas daw ba dem ba ca dëkk ba ne leen bàyyi diw nee na ah nee na kat bi sàngam dafa am am tudd dal di war a fas daw ñibbisiwaat bu fekkee koo xam ne dafa ne ci meneen réew da daan bind ab leetar bind leetar bi ah sama baay maa ngi lay nuyu di la laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram di nuyu waa kër gi bind leetar ba leetar bi jeex mu dugal ko ci enveloppe di xaar ku jëm foofa mu jox ko ko daa nga ñëw ci dëkk sax leetar ba egsi ñuy wër kan moo mën a jàng leetar bi ku ko mën a jàng mais léegi loolu amatul loolu defe naa amatul fii nga toog nii ngay toog am koo soxla ci États-Unis d'Amérique mu nekk ca saalam wala fa muy liggéey wala néegam nga yónnee ko léegi message ne ko wax ko li nga ko wax mu tontale léegi ci biir ci biir saal bi nga nekk ngeen di waxtaan te fekk na conférence baa ngi jàll te yaa ngi waxtaan ak ku nekk Amérique kon loolu ay changement la mais changement positif la loolu lu baax la ci dundi nit ki ci wàllu dund yin xam ngeen ne nit ñi bu njëkk euh, nañu daan dund ci wàllu ay néeg ak ci wàllu lekk ak wàllu naan ak nga xam ne jigéen na mu daan sonne bu njëkk bu bëggaana a lekk cere jigéen bu bëggaana lekk cere wala mu bëgg waa kër gi lekk ko day dem ca dàgg ja bojj bu bojj ya ba pare bees ko jël dugub ja soq ko bu ko soqee foofu ko daldi dem sebet ko wal ko bu ko walee daldi koy lay lii mu def ko wóor lii mu def ko sànqal dal jël sunguf ja tay ko daldi koy toj may ci gone yi suusal la ca des mu def ko laalo ko siim ko taaj ko ceeta bi njëkk lekk ko xool leen procédure bi ni mu gudde xoole ni mu gudde léegi soxna astu sekk mais bu bëggee togg cere day xaar ba ngoon jot mu dem ca bu ca kaw tali wala ci feneen ne ko jaay ma foofu naa nga mi mbuusi cere mu jaay ko laalu nañ ko def nañ lépp bu ko neexee sax day jënd ñeex du togg ñeex ñeex sax dañ koy jaay léegi dañuy jaay ñeex bu ko neexee sax kon lan ban coono moo fi kon loolu yokkute la léegi loolu bu nit ki bu demee ba yëg loolu kon da yëg ne comme léegi sama cadre de vie dafa changé samay comportement dafa war a changé bu ko defee nag foofu mooy indi musiba mi comme sama cadre de vie dafa changé léegi dëkkatuma ci néegu néegu ñax cere cerey mbuum joo xam ne mbuumum caxat lay doom war a mbuunu nebedaay léegi cerey taalaale laay reere ak salaata xeet yooyu kon léegi man ni may doxee dafa war a changé ni may waxee dafa war a changé ni may jëflanteeg nit ñi dafa war a changé loolu indi musiba loolu moo tax suñu mag ñi da nga ci daan wax ak nit mu wax ba ba daaneel li muy wax du ci dugal lu baat yépp wolof lay doon dama ne bu subaa nangam ak nangam danaa def nangam mu leer naa xool leen léegi da ngay gis benn xale bu góor di wax ak benn grand ne ko garan mu ne ko waaw mu ne ko euh, demee euh, mu ne ko grand ba ba ba timoro danaa teew sa kër grand ba timoro danaa teew sa kër ñeenti langue jëfandikoo grand tubaab la timoro anglais la anglais la euh, wala sax léegi la ba danaa teew sa gàlle la koy wax danaa teew olof la sa gàlle lu mu la na pulaar la lii aw langue kii wax ak yow nga xam ne ci modd de communication bi sax baaxatul maanaam ni ñuy waxante ci suñ biir waxin wi sax baaxatul maanaam ni ñuy doxe changé na ñun su dañu amoon suñu ay valeur am suñuy aada am suñuy doxalin am noo xam ne noonu la ñuy lekke noonu la ñuy nàng nàngame loolu ñu jël ko teg fële ngir na léegi dañoo toll ci civilisation xam nga añ jot nga tàngum raxasu taaj ko xale yi raxasu raxasu ba ci seeni conc wokk seeni mbubb nga ne sukk leen ñu sukk xale yi sukk buñ sukkee ñu téye ndab li bu ñuy lekk du ñu xool lu dul seen kanam du ñu yóotu ci digg ndab li bala ñoo dagg kilifa ga mooy dagg tegal leen buñ jógee bala ñoo raxasu dañuy martu ba set nga leen raxasu ñu raxasu <laughs> léegi loolu xewatul dangay toog fii toog mu ne non pas jot li ma kudd gi <laughs> pas jot li ma kudd gi nga jël sees sa doom jël sees ngeen toog denn boo yéexee bu dee ni ganaar ngeen di añee boo yéexee rek mu def la ko ndax yow mag nga te ñoom ay xelal dañoo gaaw boo yéexee rek mu def la ko ana yar ba léegi léegi gis nga yooyu ni mu soppe ko te kat yoolu yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko jàngal biis sukk naag gone defe naa Abdullah ibnu Abbas la walla ku ne demee bu muy lekk mu ne jéy loxoom bëgg a jëm ci digg ndab li yeneent bi tee loxo mi ne ko yaa xulaamu qul bismillah wa kul bi yaminika wa kul mimma ne ko yow xele bi booy lekkati bala ngaa lekk waxal bismillah qul bismillah waxal bismillah wa kul bi yaminika del lekk sa loxo ndeyjoor wa kul mimma del xool li na ci sa li na ci sa kanam dee ci lekk bañ a yóotu digg ndab li te loolu la suñu mag ñi daan jàngale suñu mag yi loolu lañ daan jàngale xam ngeen ne bokkoon na ci sax ñoom liñ daan yaara xele dañ lay wax ne la bul dox diggu njolloor dañ ko daan aaye xale boobu xale ñu ne la xale du génn diggu njolloor baaxul wala timis jot ñu ne la déedéet xale day toog timis bu mu génn wala ngay xale bu góor di dox ñu ne la bàyyil doxu guddi xaaju guddi dafa am boroom yooyu boo ko laajee magum Sénégal da koy tere mais du la lax lu tax mu di ko tere du ko mën a xam man daal mag ñi laa fekkoon suñu ma maam daa ko tere ma di ko tere te mag ñi lu ñu daan tere rek baaxul bàyyi ko dëgg la bari na fii suñu magi Sénégal yi luñ lay tere nga defe ne bidaa la soo ko delloo ci sunna boo ko jàng defee ko fa bari na yu yuñ lay tere wala ñu laa naan lii dafa gaaf wala nangam ak nangam nga di ko ñàngal te boo delloo ci sunna xóotal sa gëstu dëgg-dëgg da nga ko fekk ci biir yonent bi moo aaye waxtu yi ñu di jox yonent bi dafa aaye diggu njolloor ñu di ji bàyyi xele muy dox ndax heure yooyu heure doxantu jinne yi la yonent bi moo aaye ju diggante fi ñuy jullee timis ba fi marax fu ñuy wax marax baat yooyu sax fii mën a am na xale yu bari xamatuñ ko fi mën a ay marax ak ay njolloor ak baat yooyu dañ la wax ne la heure boobu itam heure doxantu jinne yi la seeni heure la xaaju guddi nag waxan waxaale wuñ ko seeni waxtu la ndax yàlla dafa bind nit bind yeneen mbindeef ci ñoom mu am ay waxtu yoo xam ne da ko may nit ki mu di ci exercer ay activité am yi mu du ci nelaw waxtu ya muy nelaw nga xam ne yaa ngi nelaw xaaju guddi am na yeneen mbindeef yoo xal ne ci waxtu yooyu dañu nekk ñoom ci seen activité mu ne mu mel ne seen bëccëg lañ nekk kon bu leen bul jël sa temps bëgg bokkaat ak ñoom